asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. Uh-huh. di nuyu waa Touba di santar rek yàlla. Uh-huh. di sant suñu ñaari waajur yi. Uh-huh. Ah, muy suñu papa yeeg suñu yaay yi. di sant tam suñu sëriñ Xaadim Rasul mi tax mu dajale askan bi Sénégal yëpp fii. tey àddina bi foo dem rek tey ji bésu Xaadim Rasul bi la ñuy waxtaanee. te dara gënu cee neex. parce que ñu teg la natt bi ñu la teg. ñu ne ñu génn ci. ñoo ne sant ma leen lenn lu dul leen santale leen ma yàlla uh-huh. ganaar ba ci gërëm gëlëm uh-huh. kon ñun amuñu dara lu ñuy wax te Sénégal am na lu kenn amul uh-huh. benn bopp lañu kenn mun ñoo xar ñaar parce que tey fu oto foo xalaat ci àddina avion mi ngi fi wàcc oto mi ngi jóge dëkk dëkk bu nekk di wàcc fii kon ñun dañuy delluwaat di santaat yàlla suñu biir te di ñaan yàlla yal na yàlla yokk yal nañu yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram di ñaan at bii di ñëw yàlla ñu gënal bu bu bi ñu fekkee. macha allah te yàlla na yàlla def yëpp nekk jàmm. ci salaam Mamadou Gueye dafa nekk nit koo xamante ne su ma dee wax ci moom sax dañuy wax naan ndax li may wax ndax dëgg la. Mhm. parce que nit ki ni ñu naan xaw ma nu ma koy def nam la dafa tax. Mhm. Mamadou Gueye aw ma tànku gannaaw ci moom. Mhm. tànku kanam rek laa am ci moom. te lépp lu war doomu aadama rek mu war ko am ci lu baax rek. maa ngi koy yéene Mamadou Gueye yàlla tàbbal ko ci. ba duñ ci gis itam lu ko jaaxal ak loo xamante ne day jiixi jaax ci xelam yàlla doon lépp bànneex ak xéewal te mu doon di a wax ci Modou Gueye waaye dama koy dénkaat yàlla rek ci cadre bi ma posé question bi su ma ci dee wax dama ciy fanaan dama ci taxawaay bi nga xamante ni tey Fatou Faye tey bi def na sa diggante ak Fatou Faye waaye tamit diggante Fatou Faye ak population bi nga xamante ne tey bi ñoom ñoo fi nekk tey secret bi nga xamante ne tey bi am na fi taxawaay bi ak delluwaay bi tey lan la ah, ñu ngi koy ñaanal yàlla yal ko yàlla defal jàmm moom tamit uh-huh. mu nekk soxna soo xamante ne uh-huh. ni mun naa ne man gan la ci man uh-huh. waaye tamit gan bu gan bu yéeme la ci man parce que mu nekk euh, ku mel ni Mamadou Gueye ak mbooloo mu nekk ci gannaawam jigéen ñi ëpp loolu góor ñi nga ñëw bugg a bokk ak ñëpp kon Fatou Faye yal na ko yàlla defal jàmm yàlla xel ni ma gis ci moom yàlla bu ko puso di réer maa ngi koy ñaanal loolu yàlla ci wax ci moom rek loo xamante ne fu ma teg tànkam foofu la yàlla mu mu gis lu koy teggi mhm. may ñaanal ko moom diggante moom Mamadou Gueye yàlla na gën a rafet mhm. ñun nag li ñu mën a wax moom mhm. jigéen jigéen ñi tànn moom bokk na ci jigéen ñi ñuy tànn yal na ko yàlla lafal cet dama xam ne mooy yaayu képp ku Mamadou Gueye yor rek na jàpp ne mooy yaayam na jàpp ne mooy leaderam waaye Mamadou Gueye macha allah li ñuy wax naan li jigéen ñi yokk doyul waaye Fass Faye nag dooleel na ko dana yokk macha gis ni tey ci biir kër gi bu ñu xoolee ñaari fan yi fat mhm. say dem nañ bëccëg bi sax ku ko gis sax da nga koy yërëm tey jii mënoon na sol jeesneer wala tey mu sol mbasin ñu sam dem toog fee di commandé bu commandé ñëpp defal ko waaye moom la ñu gis xale mag ba ci ndaw moom mooy éviteeku takk takk diggam yor ay lekk yor fekk la ba fi nga toog ba xam lekk war a naan ba tey jii ñi nga xamante ni tey yàlla suñu borom da leen a jagleel loo xamante ni muy ay ndombal tànk te est-ce que jotul nga ñu jël exemple bu mel ni ci diggante ak Fatou Faye. xam nga yoon si ko sëñ Tuubaa bi. Mhm. dama gis euh, Tidiane. Mhm. dama gis bu yéeme ci ñoom. Mhm. fii ku fi ñëw di wut ay ndombal tànk ci bés bi. dama la ndax yow da ngay nalaw. doonul Baay Faal xaw ma doon. te ñëw na fekk jëkkëram loo xamante ne. lu jëkkëram mu ne. ñu ñëw ci kon du delli. kon dama naan. wàcc yoon bi dafay dooleel yoon bi parce que yoon bi yoonu suñ Tuubaa lu mu ci daj ñun duñ ko ci daj mm-hmm. da ngay gis ngay taal kilim ba yàgg kilim bi indi tàngaay mm-hmm. dafa lay wan ne man dama am lu ma dajoon waaye daj boobu ma dajoon mm-hmm. bànneex rek laa ci gis ñu ngi lay tegal lekk ñu ngi lay tegal ganaar di la tegal pigeon di la tegal lépp kon suñ Tuubaa moo tol noonu kon yoonam bi ku ci wut fowukaay da ngay mujjee fooyee sa bopp kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mm-hmm. lu mu def rek la war a def macha allah waaw loolu rek lañu am ñun ci côté boobu lu ñuy wax ci moom mm-hmm. waaye moom mm-hmm. macha la jot macha allah bëtam yi nalawul daal ndeysaan dernier kàddu yi waaw dernier kàddu yi damay waxaat encore une fois rek sama càmmiñ man moom li ma wax lu nekk rek sama càmmiñ moomu ñor dama koy dénkaat yàlla di ko dénk yàlla di ko dénk yàlla di ko dénk askan gi nga xamante yàlla boole na leen ak moom lu ñu jàpp ci Mamadou Gueye doyul liñ ko yokkal doyul waaye def na ci ñun loo xamante ne tamit liñ ko defal rek xeet mm-hmm. nañ ko waaye ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram mm-hmm. li ñu fi boole mm-hmm. yàlla defal ko jàmm defal ko ah, guddi bi nga xamante ne yéen a ko guddi tey ji ci magal Tuubaa waañ bi madame Gueye teg ñu fi Fatou Faye man rakkam laa ñoo bokk benn ndey waaw ñun nañ ko ñu indi lii ñun teel na ñoo ñëw sax nañ ko jàppale organiser ko defaral ko ba mu baax ndax moom la bëgg bëgg ci daara la ko naqari waaw macha allah léegi màggal bi ñëpp xam nañ li ci coonay màggal mhm. tey bi yan jafe-jafe ngeen am tey bi nga xamante ni ñoo jëm ci wàllum organisation bi waaw organisation bi moom mhm. maanaam man lañ doon waxtaane léegi sax uh-huh. ñun ñëpp ay jigéen lañ ñu ay góor lañ ñu duñu jàppee fii ñuy jàpp fii uh-huh. loolu la ma dem day soxla uh-huh. moo tax mu indi équipe bam jële leen ñu Mbuur ñu Dakar ku ne am nga foo jóge ñëw jàppale ko moom loolu a jóg stress la stress na ci sax ba feebar ndax di xalaat nan lañ koy organiser lee nan lañ koy defaral a yooyu ndax loolu rek la bëgg day lay romb macha allah ñu lekk ñu naan. macha allah loolu rek la ci soxla. macha allah tey jii taxawaay bi nga xam ne tey jii taxaw na ko tey borom këram. Mhm. tey ci màggal tey taxaw kër gi xam ne wax dëgg fa yàlla. Mhm. ak tey def na fi loo xamante ni bu sox ñu ko fee def. waaw ah, tey jii contact bi ak mbégte bi tey jii lan nga koy xalaatal ak lan nga koy conseillé. waaw dañ koo encouragé rek uh-huh. waaw dañ koo encouragé bu baax di ko ñaanal tamit gudd fan ak wér parce que uh-huh. jàmbaar la te jigéen bi man góor la uh-huh. waaw wax dëgg yàlla def nañ lu ñu mën ak lu ñu mënul loo ko ne nii danaa la demal jënd ñu manqué woo ma ma ñëf la léegi nga jëndaat lépp ñëw teg soxlawu ma dara manqué soxlawu ma dara camion la gaare ñu jiital bagage yëpp ñoo indi vraiment wax dëgg fa neex yàlla jëkkëram mën a la moom ne bëggul dara manqué uh-huh. bëggul dara manqué uh-huh. moom nit ñi gaay jox nit ñi ñu lekk bornel leen loolu laa bëgg uh-huh. loolu lañ taxaw ci moom suñ toll nii pour defaral ko ko yéen ñaanal rek fan ak wér moom ak jëkkëram ñu yokk jéggalu di leen baalu àq uh-huh. waaw di leen ñaanal ñoom ñu yàgg di yàgg dal fii kër Mamadou Gueye uh-huh. ndax Mamadou Gueye bu soñoon suñu toll ay kaari kaari kaar kër gi kenn du fi xaj uh-huh. te xam naa dina gën a yaatal incha allah bu neexee yàlla macha allah kon daan nañ cee baax a baax jërëjëf auzu billahi mina shaytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi am mbégte di am contentement sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant suñu ñaari waajur di sant Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul moom ñu waral bés bi tey bu mu teral ko mu ne santale leen ma sama lu ci waay jaamu yàlla yàlla na ko suñu borom nag di wax ne nag tey ñëw naa fii seet si samay doom sama njaboot Modou Gueye taalibe Serigne Touba ànd ma soxnaam madame Gueye Fatou Faye actrice de développement sama doom bi sama wëllëre di leen ñaanal si rek ndax xam nga ni jox amul te gan ñaan may xaar ci kër ga man maay soxna Khadija soxna Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ñii mhm. sëriñ Falil Mbacke mu Xaadimu Rasuul xam ngeen ne aw ma jox mhm. li mu yëg ci mooy sama mhm. doon taalibe bu yàgg bëgg sëriñ Tuubaa nekk jàmbaar nekk liggéeykat am jom amal ñëpp càmm yàlla boole foofu soxna yu baax yi ñu topp ci ginnaawam seen ak seen teggan ak seen doomu taalibe moom fi indi uh-huh. ñaan yàlla bu ñu suñu diggantalu màggal uh-huh. fekk fi ay wëllëreen sa uh-huh. aana ni ñu toog moom it doon jàmbaar doon taalibe fekk ay mbokkam ak xaritam ñaan yàlla moo xam bi mu bëgg yàlla na ko suñu borom def di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal réew mi jàmm ñaan yàlla kaan yi ñu wàcce ñaan yi ñu fi def yàlla na woo saare ko ci suufu Sénégal ci suufu àddina bi yëpp mhm. yàlla defal ñu jàmm ak suuf. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa